du benn xam nga ni jamaa bu ma ko amoon du ma ñëwati ci émission mais ñu ngi nuyu Ndeye Ndiaye Tyson yi bari ñu ngi seetaan ah Ndeye Ndiaye mu ngi fii mu ngi Sénégal tey su la su lan nga jàpp ci ay lacune Ada Fass lan nga may wax nga gis ni ay lacune la ci moom maanaam lu mu tële bon Ada Fass moo xam ne dafa amee manin waaw mais ku am manin tamit am nga loo loo. waaw mais manin maninam mooy presque ñi muy daan ñëpp ci wet gi la leen di daane. Mm-hmm. kon heure boo indee sa mbër da nga koy moytuloo wet gi. jàpp naa ne bu moytoo wet gi Tia mille chance nga bëreeg moom ci yeneen gi gis nga ni Zarko bëreeg moom da koo xaaj bëreeg moom volte face téye ci diggu ngembam ba ni mu ko daane kon mbër ak maninam da ko fay bàyyi la mu mane mm-hmm. indi say stratégie te moom mburum wet la. mburum wet la mburum wet la gisuma muy daw di song gisuma muy jàpp ay geño di putuxlu ñi mu daan ñëpp jàpp naa ni ci wet la leen daana yi ma fekke boobu kon man su ma indee dafa jëri dafa ji Tapha Mbeur de su ma juumul ah. man moom Tapha Mbeur seetaanu ma song mm-hmm. man daal su ma yoroon sama mbër di ko indi dama ko naan moytul wet ga ndax mbër ak maninam la waaye yow nag lii say foor utiliser ko pour mën a am ndoxtu. kon yow li nga jàpp daal forêt Arafat yëpp mu ngi ci wet gi. ci wet gi la nekk. Mhm. loolu daal laa gis ma amul ay atu ay atu ci xeex. xeex bi da koy négocier rek waaw parce que xeex bi bon day négocier rek dana cofantu dana dóor laaw comme booy yi xew rek mais du bagaay réer à cent pour cent boo xamante ne day mel ni kuy ring wala am ndox dóor la croisé nga terte rek yooyu yëpp koy faj mhm. donc moom bëreeg moom jafewul mais maninam daal kuy bëreeg moom na nga ko moytu. bëreeg moom jafewul. ndax gis nga fa mu fa mboot ma mu def sos. Hmm. merci. donte mi ngi raam sax comme ni ko ganaa waxe mais maninam la fexe na ba indi ko ci sii ci li mu bëgg. Hmm. ci prise bi mu bëgg. Hmm. daan ko ci. voilà. mais Ada Fass bëggoon na maa laaj ban relation la am ak écurie ban Tapha la relation la am ak écurie Fass. ah relation bi moom écurie Fass ay papaam lañu. dina ñuy woo dinañu nemmeeku bu ñu gisee mu nekk ci lu lu yoon. dañ koy jéem a teg ci yoon canaliser ko. xam na ne aussi euh, nekkut à l'écurie de Fass mais écurie de ko bëgg lañu. ko bëgg lañu. et puis dara empêché ko woon sax ci combat bii. mu ñëwoon écurie Fass. ah mais loolu ñu déggoon nañu di travail ak ñoom moo xam deux semaines la fay. foofu nag deux fois par semaine la loolu yëpp boppam la papa ma nga Pikine. ah exactement gis nga mais boppam la xam nga yëf boppam mooy. ah bien mooy nekk naa ci écrit mm-hmm. xam naa ne sama écrit bii baax na. daaru Pikine waaye. Mm-hmm. waaye. Mm-hmm. am naa écrit boo xam ne écrit cosaan la bu fa ne atam bëri fa ne. bokk ñu sax niveau. ma ñëw tàmpali ko ak ñoom. maay gagné dafa am dara lu loolu laa la wax. loolu lu baaxoon la ci moom. Mm-hmm. mais rek loolu nekkul lu kenn di forcer moo koy bëggal boppam. Ah. waaye itam ñun itam am na suñu xam-xam. Mm-hmm. suñu xalaat am yéene aussi ndax dëgg yàlla jàppale ko ci xalaat. Mm. xalaat lañ ko mën a jàppalee. moytu li defal lii won ko yoon wi ah amul benn expérience làmb mm-hmm. mm. pour waa dem. muy wane mm-hmm. mën a war a am bindu mbër sax xamu mbër mm-hmm. mais la la ko war a mottali ba mu doon mm-hmm. daldi góor ah. ndaanaan loolu leneen loolu day ñëw ñëw avec expérience bi ñu koy ci làmb ji surtout combat bi combat test la combat excellent encore ci expérience bi niveau de combat bu mu toll parce que li tax ma laaj question boobu waaw Ada Fass moom day mbër mais booy seet li nga wax dëgg la amagul expérience làmbam des na fi mu woon a àgg ci làmb des na mais damaa gis ni am na loo xam ne bu ko amoon ci wetam. Hmm. ñu mel ni ñii ñu mel ni yow moom. Ah, dina am loo xamante ni moom dina dina dina doon champion. man wax dëgg yàlla dina ma woo dina ma sollicité. waaw mais waxuma loolu. dina wax ak man. loolu respect la may contacter souvent. mais nag il faut nga xam ne aussi aada aussi. jax coow bari bruit bi mais ku ku bari kersa la. complètement loolu gis naa ko man de musuma xool ci bët. fu ma xoolee dafay sëgg. Mhm. xëy na nag peut-être. bu amoon attachement beeg. fañ bokkoon nag ñun tam ñoo tax xale yi bëgg a bëri. Mhm. et puis ndono la yor aussi ah ndono moom. Fass moom fu juddoo di bëri rek da ngaa doon dafaraat bëri Fass commencé wul ci Mbaye Guèye commencé wul ci Mame Gorgui mm-hmm. de Fass dañ naan Boy Nar Fall di wàcc oh, ba ci ñi mujj a judd mm-hmm. donc génn fu dul ci doomu cadre Fass lu ñu xam ci combat bi mu jëm danañ ko dëggal pour mu dem bu ko jëfee yàlla mën na ko ubbil bunt bu ko jëfewul tamit yàlla mën na ko ubbil bunt mais daal on est de tout cœur ak moom ci combat bi sollicité nii non sollicité na ma jox na ma yàlla bi muy soog a taxaw wala ni mu jegee nii. bi muy soog a man man bokk naa ci taxawal combat bi. Mhm. si nee naa lañ maa demandé ñetti mbër mu ne ko jëlal guy gi mooy sa avantage amoo ci looy per amoo ci lu bari lay gañe. Mhm. parce que connaissance nañ ko waxoon yaakaar naa Moussa Ndoye. am na kenn ku ma fàtte. mais moom moo gën. ah. nga ko tànnal. ah. ma ne li nga ko tànnal. Ah. jar ndéem la de. mais moom ah. à la eh. li ma ko tàmmal. Ah. li li ma ko tànnal noonu mooy li waa mooy. mooy li fa waa tàmm tàmm gone bis. waaw man bis. man moom mooy dañ ne da ngay mais la ñu xam mais da ngay daan ku la mën ah, mbaa hmm. ku mais attends bu bu ñu nee Coense nga ne ñu ne diw nga ne lu jëlu guy gi moo ëpp ñooñu niveau. Hmm. bu la daanee. seen niveau nga yem boo ko daanee ubbi nga aas. Hmm. yooyu daf ci joué. waaw ba soo defee li nga wax def ëpp la doole mun la war laa daan. Hmm. tànn la woon ah, mu tànn dañ ma demandé woon conseil seulement. mu hmm. ne ko bii moo ci gën. waaye ba ba ñuy waxaale ba prier yëpp maa nga ca woon. mais ndax xam nga ñi mu kontaagal ci combat bi wala xamoo ci loolu dara. non musuma fréquenté musuma fréquenté seen équipe yi. même boo ko fréquenté nga dégg ay écho ne. Ah, dégg dégg moom du ma ci sukkandiku man. man ah. gis bët rek. ah adversaire dafa mel ni général Malika bokk na ci ñim contact gala. Ah, ah kon contact na Dalinko ak Diop ah contact na. waaw ana waa écurie moom. ah na écurie. Hmm, écurie wàllu kenn moom écurie moo fa daan. écurie moo fa daan ay naana la fa. Pambaay nga benn. waaw am na ñeenti bokk na Pambaay. Mbaytin ay safara Mbaytin. safara fa la nekk. Mhm. ak euh, ñoom fifty cent ay doyen lañ quoi. ay ñoom Pambaye ak ak ki bëroon ak Serigne Ndiaye waay il n'est am na sax am na sax benn boy bu. bu xereñ bu naan bu naan Fadam Junior. Ah, bokk na ci xale yi gën a acharné. waaw mbër yu bari léegi dañuy dem di dañuy dem tuuti ñuy contact mm. mm. mm. dañuy dañuy dem contact seen gars yi. ah oui mais loolu moo am lamb fa la toll. fa la toll dama ne Gris Bordeaux na am combat xalaat ne Ama Baldé la war a contactal pour daan ko muy bëri mu mu fexe di contact Ama Baldé. Hmm. mais est-ce que suba du yàq. bu subaa du yàq. du yàq dara mais loolu moo am mbër ñoo war dem seeti fu leen arrangé ñu fay dem di ko lijjanti ndax léegi mbër yi en général ci écurie yi nekk ñu fay toog di contact di respecté loi écurie yi bariwuñu. Hmm. am na ci yoo xamante ne mbër yoo xamante ne amuñu sparring partenaire ah. Hmm. ci écurie am na ci sax écurie yoo xam ne entraîneur yi ay gumba lañu. bon <laughs> jeex amuñu benn xam-xam. waaw mais rek lañ lay wax soo teyee ci lépp moytu lépp looy def. te yaay wax ku ñu nekk yaay wax ku ñu yàcc. lamb bi dafa compté ñetti entraîneur. mat yu capable. waaw xam ne kii mbër mu yóbbu dix combat dina am neuf victoire benn défaite. mën a jeexal lamb. déedéet mosuñoo bëre. xamuñu luy bëre di ah. jànguñu ko fenn bari na ci coach coach coach rek ñu yor ah. bu ndaw ah. mbaa mu ne physique booru géej ñu ne coach man sax bari na bari na entraîneur yoo xam ni <coughs> su pause amee pose maanaam ñu bëree cinq minutes ñu àtte du ñu wax ndoxtu déedéet teel ba kañ teel moytul moytul ku moytul lépp looy def xaar ko xaar ko yooyu lañ lay conseillé <laughs> mhm. mais gis nga gis sa nga ne ko yow xanaa xamuloo ne boo defee lii lii moo ci mën ko mën na ko ci fekk mhm. pourquoi mënoo utiliser nangam ak nangam ak nangam kii de nee na yooyu mooy ndakaaru yooyu ay entraîneur yu am xam-xam ko war a def mhm. mais entraîneur boo xamante ni maanaam yow bëri làmba neex rek nga ñëw